Heavyweight.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 mu ngi wuyoo ci turu SS ka ca des di wuyoo ci turu MN tiit nee nañu ñoom ñaar ñëpp seeni at weesuwul fukki at ak juróom eskay keroog nee ñu jàkka ja kenn xamul looy file ndax coowal ñaari xale yooyu mbir mi nag nee ñu li ko indi mooy MN ak SS ay àndandoo lañ ñoom ñaar ñoo bokk benn groupe abe di faru jar wi ñuy xëccoo nag moom it nee ñu mu ngi am fukki at ak juróom benn abe moomu nag moo doon génn ak SS ma ne xoolal ma lii rek ay xale yu ndaw di doxal te nag ñoom ñaar seenuk ànd xaw naa diire seetal ma lii noonu nag seen beneen xarit bu jigéen bu bokk ci biir groupe bi wuyoo ci turu MK moo daal di klaate ndax MK moomu daa yëg ne AB ak MN ñu ngi génn ci suuf naka noonu mu klaate dil bi wax dem daal di gis SS ne ko AB dafay génn ak MN SS daal mer ba furtu daal di kamba NN moom ak MK MK moo doon ki nga xam ne nii moo war a def dil bi ba AB ak MN daje naka noonu ci la MK waa ba jiiba dal di gisee MN jóge fa dem gis AB wu jar wi fexe ba ñoom rendez-vous dal di daje bi ñuy daje nag ci wetu jàkka ji fekk boobu ñu ngi doon naafila bi AB wu jar wi nag taxawee ak MN MK waa ba ji ba dal di woo SS bi mu ñëwee fekk MN ak AB wu jar wi taxaw rek ci la dal di claté attroupement xeexoo bi daldi tàmbali diggante ak MN ñu xeex fa xeex bu metti saagante yi mel ni tulleeg mali ci waxtu woo xam ne ci wetu jàkka ji lañ doon xeexee fekk boobu ñu ngay naafile ma ne ñaari xale yi dañoo dem ba trouble naafile bi yëpp laa wax foo toll dégg coow li ma ay xale bu ñu leen yarul nii rek bi coow li demee nag ne kur benn waay moo mujjee dagg julleem dal di génn fekk fi xale yi di xeexee mu dégager leen li ci gën a doy waar nag waa ji bi mu génnee di dégager xale yi ab farwu jar wi moo jël seen défense nga dal di akki waa ji ma ne xeex faak moom xeex bu metti laa wax ay yi nag bi mu demee ba ëppi ci la ñeneen ñu nekkoon ci biir jàkka naafile ñoom it dal di génn fekk ab farwu jar wi dal koy jàpp duma duma yu métti metti waaw góore waay ñaari xale yi jigéen yi doon xeex nag ngir ak seen copinu waaba jiba ba foox la ñu def dal di daw bàyyi fa aabe waaw góore waay am ngeen fulla de ma ne leen nag lii mooy Sénégal ay waay Sénégal fii la toll ci yàqute senegal nag léegi xale yi doxaan la ñuy foonto billaahi xale yi liñ ci xam mag ñi sax xamuñu ko ci lu wér boole am fit goo xam ni maara de tali moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax mbirum astu soxna na di ndaw si jigéen soosu faatu woon ca l'hôpital Ahmadou Louga ci wàllum négligence tax sénégalais yëpp seen xol yi jóg loolu ba léegi mu ngi woyee ki mbiram ndax gannaaw mbir moomu balaa enquête bi di daanu rek ba nit ñi war a xam nag li ci xew ci la ministre tital bi di Abdoulaye Diouf Sarr daal di génnee def déclaration ñaawlu ko daanaka xaw a dëggal teesu négligence bi loolu nag daal di jur mettit ci koor boobu tax ba kurelu sage-femme yi daal di mer ba futtu daal di yëngu-yëngal ay waay waay réew mi feebar gannaaw enquête bi nag ci mbir moomu ñeenti sage-femme teg nañu leen loxo ma ne dafa war a leer de mel ni dafa bëri ci réew mi moo tax ma ne nag Sénégal bérébul liggéeyukaay yi ca dëgg-dëgg nag problème mu accueil la am ñàkk kersa goo xam ne maara deetaal yi rawatina nag ni ñuy accueillir nit ñi ci hôpitaux yi ma ne ni ñuy accueillir nit ñi ci hôpitaux yi Bar rax ci dolli suñu système sanitaire bi échec ba maare detaali waaye ma ne réew mi réew mi ki fi nekk ko bëgg a wax maare detaali laa wax waaye nag de ma ne capitaine Touré mi doy na waar ma ngay bëgg a jommal gars de ndax mbirum Adji Sarr moo tax ñu dàq capitaine Touré capitaine Touré yaayam jël ko ñu dàqati ko fa ñu defal ko ab ket mu am vingt millions ñu jëlati ko ca ville dakaar moom a Guy mari Sagna coow li ne kur tey affaire aji moom daal affaire aji ji doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz.